sénégalais yépp ciy wax daaw ndax lu mu def wala deful wante képp koo xam ne yaa ngi topp suñ réew képp koo xam ne yaa ngi topp Damel xam nga ni suñu position changé wul dañoo justice li nga xam ni moom moo nekk du ay journalistes ñoo koy wax du ay politiciens ñoom ñoo koy wax justice ñooy wax Khalifa Sall wax delloo leen ba ñu xam lan mooy dëgg ak lan moo dul dëgg loolu moo mësa a nekk li nga xam ni moom la suñu naataange réew gëm loolu mooy nekk li nga xam ni moom la mësa wax tey jii nag lañ ko gën a wax ndaxte ah procès bi mi ngi avancé te dafa mel ni ñépp ñi nga xam ni maire de Dakar mi ngi doon am ci ñoom yaakaar wax nañu loo xam ni dëppoowul ak moom li wax léegi te tamit li nga xam ne moom la suñu xel mënta jàpp mooy nga yor xaalisu askan wi te mënoo ni askan wi

li ñu moom la jaay kon loolu sax man war nañ ko mën defee na ko suñu xel jàppee mais boo yoree xaalis askan wi ak saa yu ñu la fëggee ni la loo ci def war nga ko mën a wax kon ñun du ñu bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo naan Khalifa Sall détenu politique la dañ ko war a génne ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ni ñaanaluñu kenn mu nekk ci ay jafe-jafe mais dañuy xaar suñu justice wax li nga xam ni moom moo nekk ñu ciy profito di ñaan suñu justice képp koo xam ni jël nga suñu alal bañ am ci firnde nga toppal ñu li nga xam ne ñoo ko moom képp koo xam ni jàpp nañu ñu ngi laam-laamee ni jël nga xaalisu askan wi même bu dee présomption d'innocence am na ñu càmbar xool ndax jël nga wala jëloo kon dañuy wax justice bi nañ ñu jëlil ñu ci des càmbaxal ñu leen ba nga xam ni xaalisu askanu Sénégal askanu senegaal mën koo jëfandikoo ñun ci wàll woowu loolu lañ ci mën a wax leneen li nga xam ne tamit dinañ ko ci wax mooy nit ñi dañuy tudd yërmande bu dee dañuy wax waxu xaalisu askan wi yërmande amu fi ndax yërmande mooy yërëm askan wi ba nga xam ne li mu moom te nga xam ne doyu ko kenn bañ koo def ci loo xam ni santuñu la ko te bu ma dellu see ci yërmande ba léegi ñun fii lañ juddoo fi lañ màggee Sénégal am na ay jamono ancien président Ablaye Wade di dugg kasoo ko génn ñan ñoo ko daan dugal kaso waa PS liñ ko daan dugale kaso dëgg laam du dëgg yaakaar naa ne buñ dellu see tey ñu bari dinañ ni teguñ ko woon ci yoon wande est-ce que jamono jooju Khalifa Sall nit mës na koo dégg mu wax wala nit mës naa gis mu bind ni président Abdou juuf amal yërmande ci président PDS bi muy Ablaye wadd ak ay ministre am loolu bu dee am na bëgg naa doomu aadama yi wan ñu ko ndaxte booy woote yërmande da ngay xalaat tamit ki ngay wooteel yërmande ndax moom ci boppam am na yërmande

foofu la wax ji toll wax jooju waxu justice la mais yéen sama mbokk politiciens yi war indi askan wi ci li nga xam ne mooy li nga xam ne fayda wax mbalit mi nga xam ni mi ngi leen di bëgg a rey fan ngeen ci jëm ak wax ni enseignants yi grève fan ngeen jëm ak ngeen wax leen ni hôpitaux yi nga xam ne bu ñu fa duggee ñu jox leen ay ordonnances yoo xam ne mënuñ koo jënd nan ngeen ko bëgg saafara yaakaar naa ni loolu lañu ñu laaj politicien ki nekk ci nguur gi nag ak ki nekkul ci nguur gi bu ñu weesoo senegal damay xamal sama mbokku Cees yi ni débat bi waxtaan wi ci biir àddina bi tey du waxu kii mi ngi prison ak ki nekkul prison wax ji mooy kan mooy raw ci intelligence artificielle intelligence artificielle muy lan muy xam-xam bi nga ni ci machine yi muy xam ordinateur algorithme di ngeen ni machines yi xam-xam lu nekk ci ay doomu mais loolu lañ intelligence artificielle tey jii ñi internet bi yaa xam ndax da jëfandikoo Facebook yaa xam ndax da ngay jëfandikoo euh, Google yaa xam ndax da ngay jëfandikoo Airbnb wala Uber loolu lépp intelligence artificielle la loolu lépp ay algorithme la tey jii tubaab yi ñu ngi xalaat nan la ñuy yegge foo xam ni robot yi ñooy liggéey ñoom ñu toog wala bokk am na ci liggéey yu bari yoo xam ni robot yi ñoo ko nar a def kon dañoo nar a jël sax ay nit di leen fay xaalis te seen liggéey dootul bari tey jii foofu la tubaab yi toll ci xalaat mais tubaab yi bu fa toll bu ñu fa tollee ci xalaat ñun loolu jombuñu ndax sénégalais yi jàng nañ ko xarañ nañu wande ku ci dem Europe ba yegg ci yenn niveau yi informatique yi toog fa wala képp ku ko jàng fii ba yegg ci yenn niveau yi aussi

ay teesante ay sos wala kiy ñëw di la dig naan da naa defal équipe nawetaan bi euh, wala ñu koy tuddee benn làmb wala mu ñëw di joxe ay cent mille ci leket gi wala ay cinq cent mille ci jàkka ji yooyu yépp dañoo jàpp ni mooy politique bi fii mais politique bi yow jeune bi yow ceesuwaa bi xamal ni du loolu politique bi mooy tey yow nan lañ lay inscrire ci logique boo xam ci intelligence artificielle di nga ni Sénégal fii la toll man fii laa ko jëme te suñ naataange réew ci loolu la bëgg ànd xalaat ak jeunesse sénégalaise ànd xalaat ak cadre yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci réew mi ñu mën a fixé wu ay objectifs fixé wu ay horizon xam ni amul dara loo xam ni ngi am njëriñ ci société occidentale bi ba ñu koy utiliser fii ci Sénégal te loolu jombuñu ñun sénégalais mais il faut que ñu weesu fi nga xamee ni duñ def lu dul jëfandikoo ko il faut que ñu toll foo xam ne ñu nit ñoo koy defaral suñu bopp su boobaa kenn du ni lii day yàq réew mi ndax dinañu mën a tànn xam ni ñu bëgg lan la defare ko ni ñu ko bëggee